Wally Ballago Seck revient en force avec un nouveau record dans le landerneau musical sénégalais. Le Faramaren vient de récolter plus d'un million de vues sur euh, YouTube à travers son nouveau clip bi nga xamante ni sëkk na ko ak Viviane ci benn featuring ñu tuddee ko Rëgin Tas plus d'un million de vues mu nekk record gu bees goo xamante ni nag internet yi ak ñi nga xamante ne ni saytu wàllu musique di ko bàyyi xel ci euh, réseaux sociaux yi euh, lu nañ ko vraiment ñenn ñi sax ñu ngi wax ni est-ce que tey jii nii mënuñu cee jàngate qu'il y a une certaine longueur d'avance ak benn leadership goo xam ne mi ngi koy ci une certaine concurrence goo xamante ni ñenn ñi jàpp nañ na am na ko diggante mook Sidi Diop bi nga xamante moom moo nekk label Subatel waaye Sidi Diop tamit mel na ni croisé wul les bras bi Wally Seck enchaîné clip ak Viviane rek automatiquement moom itamit mu tontu ci benn teaser boo xam ne defagum na ko ak Queen Biz ñu duppee seen son yow laa faral nga xamante ne clip bi génnagul mais yow la faral en seulement 24 heures amagul 500000 vues donc am nañ plus de 400000 lu jege 500000 euh, vues ci waxtu wi nii waxe ak ci chiffres yi ñu amagum donc mu mel ni mën nañ jàpp ni le Faramaren Wally Ballago Seck à une longueur d'avance ci ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop.